marché ambulant déglu naa leen déglu naa seen bébét effectivement jël na acte donc ensemble ñu ngi trouver ay solution d' accord nañu si que ñoom lal tali bi dinañ ko bàyyi d' accord nañu tamit que def ay table foofu dinañ ko bàyyi du amati d' accord nañu tamit que ensemble dinañu seet ay place fu ngeen mën a dugal am na ay place yu ñu ciblé place yu ñu ciblé nag comme ni ma ko waxee am na yu ma ci gestu parce que am na amati na ñun peut-être mën nañ ci dara am na xamante ne tey il faut ñu gis seen i borom waxtaan ci ak ñoom ma xamal leen que ne donc nekk ci kaw télé bi moom mënul koo colère muñ ko toléré d'accord nañ ci en tout état de cause euh, fustigé nañ aussi que bu mairie Plateau dañu yàq seen bagage loolu dinaa wax ak maire bi pour xale yi bu ñu ñëw di def seen liggéey ñu def ko ci yar ak teggin ak responsabilité li nga xam te ne maanaam mooy li nga xam te ne mënuñ ko nangu rek mooy ñu exercer pression ci kaw état di exercer ay chantage kaw état loolu mënul nekk état bi mu ngi réfléchir ci lu ñu mën a def pour ñu andi solution loolu nag nekkul benn fan lañ koy def nekkul rek tout de lañ koy def il faut que ñu seet naka lañu koy defee avec le temps à court moyen ak long